boo gisee ñu ñemee wax ci changement climatique cent projets yi ñëw Toubacouta soixante dix bi yëpp ci environnement la ñu yëngatu nañ ko xam dafa nekk lu ñu dund. thématique bi am gën am solo ren ci changement climatique boo gisee ñu mën koo porter même suñu budget nañ ko ciy boole parce que changement climatique moo yor àdduna bi moo yor jaww bi. tey bu fekkee respecté nañ ko nangoo sensibiliser xale yi nangoo bi ndaw si ñu wàññi yàq bi nga xamante ne fi ne nii lépp lu ne ci forêt bi rek suñu loxo la tege loolu nag dafay baax. ci thème bi ñu jël ren ñu xam ko mais non seulement ñu communiqué dañ oo CODEC bi waxtaan ci ak moom ñu sensibiliser xale yi ci école yi a bas age bu ñu demee bay rappeler autorité yi à l'ordre autorisation ni coupe yi na ngeen ko wàññi kon xam na ñoom seen porte fu ñu ko teg. bi océan ci mangrove la ñu daw si pour mun feneen soo xool tey ñu am tey ay réserve comme ay AMP Bambouk muy AMP bi njëkk a fii Toubacouta mu nekk AMP boo xam tey ci lañ jëlee exemple pour jëpp di si def nanga